Dakar, moy buntu Afrique bu ñu nee sañse fii tax sama impression ci premier tour du concours sañse mooy que euh, l'idée est pertinente concours bi ce n'est pas que ne euh, jury bi dañ fi nekk rek après ñoom ñooy def lépp mais ñom ñoo ñom tam dañ ci am seen responsabilité moy ñu duggal seen bopp tam duggal ndax nit ki boo amee loo bëgg yaay dem utiliser sa bop parce que fi toll ni on peut dire que là ça va être des professionnels qui vont rentrer en jeu. xale la 93 ans li ne ci man dama koy génne. mën a pare pareel man paré na té man xam naa ragaluma fima jëm man. may raw bam doole la ñu man dama gëm naa ni que ni war naa ko mën a gagné daal. Jere boson kweliko